ajjuma yemook ñaar fukki fan ak juróom ci weer wi port autonome bu dakaaru dal dinay dalal ab bato bu ñuy duppee Iva River mu bàyyee ko ca port bu Vlissing ca Hollande bato bi nag lu toll ci juróom-ñetti junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ak juróomi tonne soble ñoo ci nekk ñu dal di koy séddale ci juróom benn junni ak juróom-ñett fukk ak ñeent fukki palette déchargement bi nag ñu ngi ko amal ci supervision wu DG bu port autonome de Dakar Mountaga lu ni mel mooy ñaareelu yoon kilifa yi nag fexe ut saafara ci ñàkkum sable bi nga xam ne nemmeeku nañu ko ci marché bi fan yu weesu moo tax ñu jël bépp matuwaay ngir fexe ba bile déchargement ñu amal ko ci nu mu gën a gaawee lu ni mel nag doon bànneex ci ménage yi rawatina bi mu desee fukki fan rek ngir ñu amal màggalu Tuubaa bi la nag dafay dal di door campagne bi wane ne soble si jóge biti réew di dugg ci biir réew mi campagne boobee nga xam ne li ko tax a jóg mooy fexe ba dal di saafara ñàkk soble gi ci marché bi moo tax autorités yi sax xamle nañu ne marché bi dina am soble bu am qualité ci nu mu gën a gaawee waaye ñu fàttali rek ne juróom-ñaari junni tonnes soble port autonome bu Ndakaaru wàcce woon na ko fukki fan ak ñaar ci weer wi ñu nekk